nee nañ dogal yi nga xam ne yoon jël na ko ci dossier gàddaay xaw ma Aly Ngouille Ndiaye day nappaate xaw ma day def chantage xaw ma dafa foog ne waaw euh, mooy loolu na delloo kër ak suufu waa gàddaay na respecté décision état du Sénégal nañu respecté décision de justice nappaate ak xoxatal tentative d'intimidation dara du fi jàll ñaareel bi mooy waa PCC yi waa ABS ak waa King Fahd Palace nañu dab seen bànneex saafara seen jafe-jafe régler seeni revendication ñeenteel bi mooy suñu mbokk yi nekk ca kaw ga te naan seen ndox bi nañ ko jëlee ci loxo opérateur yi mel ni Aquatec nga xam ne nekk ñu fi dara loolu ngacc seeni ñàkk ngacc seeni fistine seeni dërëm te yokk ñu fi qualité ndox yokk ñu fi quantité ndox nañ leen delloo saytu ne ndox bi waaw askan wi waaw ils sont suffisamment euh, majeurs matures ba paré wane nañ sen ñambarté, sen njàmbaar waaw euh, euh sen mën-mën ci saytu bu ndox Benen bi moy étudiant victime de Afrique Canada yi nga xamné dañ leen escroquer yoon wax né nañ leen dédommager étudiant bu nek un million de dommages et intérêts nañu appliquer décision bi juróomeel bi mooy bachelier yi nga xam ne ni ñu ngi am bac juillet 2019 maanaam jamono jii daaw ba tey orienté guñu leen bëgguñu coow bëgguñu histoire bëgguñu bal tàkk bëgguñu beneen fàllu seen bëgg bëgguñu beneen Balla Gaye bal Balla Gaye c'est voilà bëgguñu beneen fàllu seen bëgguñu ko de jàmm la ñu bëgg orienté leen xale yii mënuñu am bac nek seen yaakaaru wajur yaakaaru depuis un an mon leen orienté septième promotion UVS c'est bien la septième promotion septième promotion UVS moi donc avons un bac ñoom itam daaw promotion Nous muy étudiant UVS joxaguñu leen seen machine nous la nous. bëgg bëgguñu kenn dégguñu nous ñu naan Nous avons Nous leen continuer hani sen inscription sen orientation sen machine waxuma buntu pale Waye lalu Macky Sall lañ jëm les étudiants orientés dans le privé nañ leen jox seni bourse nañ leen jox seni aide ci nu mo gëna gawé. Waye itam comme dañ leen yoni dañ leen yoni ci xawma université ak école privée supérieure yi bor bi état bi amel les écoles d'enseignement supérieur nañ leen ko fay ndax ñoom ñu mën a am jàmm bu ko état bi fay université publique bâtiment public